أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dellusiwaat nañ ak yéen ci darsu siira bi tey ñuy jël bayatul aqba athaniya mooy jaayante gi nga xam ne mbooloo moomu ñu leen doon wax te ñu jóge woon madinatu munawwar ci jamonoy aj ñëwoon makkatal mukarram doon aj si ñu ànd ndoog musab ibnu umayr ñi nga xam ne bokkoon nañ ci délégation boo xam ne ñu ngi jóge ansaar mbooloo moom bi mu ñëwee ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo doon jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci jaayante ñaareel gi xam ngeen ne yonent alayhi salaatu wassalaam balaa mu doon envoyé musab ca Médine boobu fekkoon na waa Médine genn wàll gi yëpp ay yahud ñoo fa nekkoon ak ay mushrik ci waa Yasrib waaye Musab ñëw na fa ci yëngatoom ci góorgóorlu ba kër gu nekk ñu fay dégg turu yonent bi alayhi salaatu wassalaam même ñooñu sax bu ñu duggul ci diine dégg nañ turu yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu moo tax délégation boobu ñaareelu délégation bi biñ ñëwee màkk jaayanteeg ñoom ñu jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yomboon torop mu nekkoon ci ayaami tashri ci jamono yi fani aj mu ne ba nga xamante ne passé na ñetti guddi ci seen rendez-vous ñoom waa ansaar ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa kaanu thalathata wa sab'ina rajulan wa kaana maahum imra'atan nekkoon nañ juróom-ñaar fukk ak ñett waaye ñaari góor ñaari jigéen rek a ci nekkoon ñi ci des ñëpp góor lañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam recevoir na leen waaye ba mu leen di recevoir daf leen recevoir ak bàyyi taxam bu tudd Abbas ngir lan ngir mu nekk porte parole am muy wax ak mu ñoom ci turu famille yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom Abbas ngir mu dëgëral doomu bàyyi taxam bi li mu bëgg a wax ak waa Yasrib contrat bi ñu bëgg a signé ngir Abbas dëgëral ko moom Abbas sax wa kaana awwalu man takallama moom mooy ki njëkk a wax keroog bi mu waxee ba daaneel waxam la yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam doog a jël kàddu gi nag daa di wax ak waa Yasrib te mooy waa Madinatu Munawwar mu ne wa qaala ala bi mu wax ak ñoom bokk na ci lim leen wax mooy ubaayicukum ala an tamnauni mu ne damay jaayante yéen pour ngeen défendre ma lépp loo xamante ne da ngeen koy bañal seen bopp ci wàllu gàcc ngeen bañal ma ko lépp lu ngeen di tere seen jigéen ngeen tereel ko samay jigéen ndax lu ngeen bañ ci gàcce gu ma dal gu leen dal ngeen bañ mu dal ma bépp gàcce gu ngeen bañal seeni jigéen mu dal leen ngeen bañal ko samay jigéen ñaar yooyu bokk na ci li yonent bi wax ak ñoom mu ne leen bu ngeen ko assuré wala kumul janna yéen waa ansaar am ngeen aljanna fa qaamu ilayhi rajulan rajulan ñu daal di jóg mbooloo ma jóge woon ansaar yépp taxaw ñuy jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn par kenn kenn par kenn ñoom ñëpp képp ku jaayanteeg moom mu diglaal janna moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne après suma yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw loolu sàkku na ci ñoom fukki góor ak ñaar yu gën a set yu gën a laab yoo xamante ne xamewuñ leen caaxaan xamewuñ leen fo yonent bi alayhi salaatu wasalaam wéet ak ñoom daal di wax ak ñoom kon ñu xam ne kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi ku sonn la pour diine ji tasaaroo jàngeen ci dars passé biir Màkka li fa yonent daj saxaaba yi jógee fa dem Éthiopie ñu dellusiwaat delluwaat jóge fa dem Taif gis ngeen tey yonent alayhi salaatu wasalaam mi ngi nii di xoolaat di defaraat di seet ay yoon ak ay pexe lu baaxalaat lu mën a tasaare woote gi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala gàll ci loosam nee na ci jaayante googu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon jaayanteeg waa yasrib yonent yàlla alayhi salaatu wasalaam sart na ci ñoom sart goo xam ne da ko cee yokk te mooy xeex yooyu ngeen doon dégg waa siira di nettali mooy xarbul ahmar wal aswad xeex yi nga xam ne doyoon nañ waar ci jamono yooyu bañ tuddee leen xeex bu xeex yu xonq ak xeex bu ñuul sartoon na ci ñoom ne yooyu moom foog ñu teg ko ci suuf ndax yëfu ceddo la yëfu jaahil la du diine waaye keroog kenn ci ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci jaayante ga ku tudd Ubaada ibnu Saamit xam ngeen kii ku siiw la ci sahaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne baayaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñun waa yasrib jaayante nañ ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaayante dégg ak topp maanaam li yonent wax ak ñun déggewuñ ko sunuy nopp rek mu daal di jeex waaye dañ koo dégg déggu aji topp ci jamonoy yomb-yomb ci jamonoy jafe-jafe fi usrina wa yusrina su jafee ñu topp yonent bi bu yombee ñu topp yonent bi bu jafee ñu dégg bu yombee it ñu dégg maanaam loolu mooy jaayante waaye lii nga xam ne moom la ñuy jaayante ak yonent bi dañoo nangu kenn forcé wuñu ñun ñoo toog ba mu neex ñu ñu xam ne dañoo war a nekk ay jullit ñu ñëw jaayante ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul benn yat wala kàddu gu nekk ci ginnaaw loolu déedéet ñun dañoo tànn loolu waaye nag jaayante nañ ba tey yonent bi alayhi salaatu wasalaam gënal ñu sunu lépp nag lépp lu nu am yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo nekk ku ñu ko gënal du ñu xëcc ak moom ci lenn jaayante nañoo ak moom ba tey ci dëgg fu mu nu fekk rek ñu jëfe ko ñu wax ko bu dee dañ ko war a wax bu dee jëf la ñoo jëf ko aynama kunna fu nu mu mën a nekk nag laa naxaafu fillahi lawmata laim du nu ragal ci yàlla yedd aji yeddeel kon gis ngeen waa yasrib jaayante nañ ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaari yoon jaayante gu njëkk ak jaayante gu mujj jaayante gu mujj gi nag seen wax yi ñu wax ni mu dëgëree ak ni mu dëggoo looloo waral nag léegi alxijratu ila al madina looloo waral nag gàddaay gu mag gi nag léegi nag war a am nag sahaaba yi war a bàyyi koo mag jëm medinatul munawwar yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàlla jox na ko ndigal ne ko mu wax jullit yi nañu gàddaay dañu yége màkk jëm Médine lu tax ndax barab ba ubbeeku na dëkk bi ubbeeku na kër yi ubbeeku na xol yi ubbeeku na dënn yi yaatu na lislaam commencé na samp ay reenam ca Médine maanaa la nekk Médine ci ay nit yu mën a toléré lislaam nekkul makka makka moom ay nit yu soxora fa nekk te gëmuñ ña fa gëm sax dañuy nëbbu waaye Medine gis ngeen yonent bi alayhi salaatu salaam yónni na fa Musab ba Musab ibnu Umayr liggéey fa liggéey yu am solo looloo tax yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam jox leen ndigal nag léegi nag nañu waaj nañu gàddaay waaye mbokk yi ci baatu alhijra borom xam-xam yi léeg-léeg buñ ci tollee ñu laaj ndongo yi ne leen ndax gàddaay daw la wala lan la alhijratu harban am la daw la wala lan la waaye muhammad ibnu abdul wahab borom kitaabu tawxid tontu na ci usulu salaasa question boobu souvent jàngalekat yi laaj mu ne alhijratu intiqaalun min baladi shirk ila baladil islam gàddaay saa yoo ko déggee saa yu ngeen déggee ñuy wax mbiru gàddaay rek bu yeboo ngeen xam ne ne mooy toxoo ci dëkk mooy yàlla dëkk bokkaale jëm ci barab bu ñu mën a wéetalee yàlla bu ñu mën a jaamoo yàlla loolu mooy gàddaay soo déggee nit ne gàddaay naa rek mooy toxoo naa fu ñuy moyee yàlla fu ñuy bokkaalee yàlla jëm fu ñuy kennalee yàlla loolu nag tey boroom xam-xam yi wax nañ ci wax yu bari est-ce que mën mu ngi continuer ba léegi walla arrêté na ñu ne bu fekkente ne jullit bi dëkk bi mu nekk donte ne mooy yàlla bari na fa waaye kenn terewul nit ñi julli ñu ngi dégg nodd kenn terewul nit ñi loolu ñu naan usul islaam principe ul islaam yu dëgër yi ñu ne su boobaa day nit ki amul droit gàddaay jóge dëkk boobu waaye bu fekkee dëkk bi mu nekk nag dañu tere nit ñi jaamu yàlla tere leen julli tere leen def seeni arkaanul islaam ponkil islaam yu mag yi su boobaa nag jullit ñi amuñu droit toog ci dëkk boobu dañoo war a gàddaay génn dëkk boobu loolu benn tënk la woon bu ndaw rek buñ doon jaaraale ci baatu alxijra yonente alayhi salaatu wasalaam jox na ndigal jullit yi ne leen nañu gàddaay nañu jóge màkk nañu laxasaay jëm medinatul munawwar fa baadaru ilayha jullit yi daal di koy dégge ndeysaan déggug xol déggug jëfe daal di gaawut jëm ca Médine walam yabqa bi makka illa ras illa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mu leen ne gàddaay leen li lay wan ne déggal nañ ko mooy makka kenn desatu fa kudul yonent bi ñépp départ nañ yonent bi moo fa des wa Abu Bakr wa Ali ñett ñi ñoo fa des yonent bi ak Aboubacar mi mu war a àndal ak Ali yi mi ko war a wuutu ci biir këram ci kaw lalam pour delloo ndénkaane yi nga xam ne moom la yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam moom lañ ko dénkoon pour bu xëyee delloo ko fa aqaama bi amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa baqiya mimman xabasatuhu walmushrikuuna kurhan nee na yenent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo des mag Aboubacar Ali ak ñenn ñi nga xam ne yéeféer yee leen tënk ëpploon doole tëj leen ca màkk ñemewu ñoo génn mooy ñooñu ngeen dégg alxuraan di leen tudde adduafa ñu néew doole al mustadafun ñi nga xam ne néew nañ doole trop trop trop mënuñoo génn mënuñoo dem fenn ñenn ñi feebar ñenn ñi ay jigéen lañ ñenn ñi ay xale lañ ñenn ñi ay màgget lañ ñooñu daal ñoo fa des waaye ñeneen ñëpp ñi ngeen xam ne amoon nañ kàttan keroog ba ñu déggee yonent bi ne gàddaay ñooñu desatuñu biir màkk ñoom ñëpp génn nañ ña ca mën a nëbbatu génn nëbbatu dem nañ ña am fit ñu mel ne Omar ak Suhaybu Ruumi ñooñu moom gàddu nañ seeni ngànnaay génn jëm Madinatul Munawwar fekki Mus'ab gàddaay bàyyi bokkaale jëm ci allahu subhanahu wa taala kon incha allah mbokk yi yaakaar naa buñ ko tënkee sunu darsa tey dana nekk jaayante ñaareel ak gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaay nag dinañ ci jàng lu bare bare bare bare bare bari yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni muy gàddaayee moom ak xew-xew ya ca xew waaye gàddaayu Medine indi na lislaam ndam ndax yonent bi mu demee Medine yàlla dimbali na ko mu occupé espace bi tabax jàkka ji moo tax gis nga bi mu ne cëpp li mu njëkk a def mooy tabax jàkka ji commencé charia yi lislaam yi commencé wàcc ñu commencé jaamu yàlla normal moo tax dañuy wax ne booy xool alquran ñu ne 114 saar la 114 saar yi ñu ne 92 moo wàcc màkk 22 ñoo wàcc Médine waaye gis nga yi wàcc Médine yëpp soo xoolee saari Médine yi charia la ñuy jàngale nu ñuy jaamoo yàlla lu tax ndax fële la fa nekkoon mooy bokkaale daf lu bon moo tax di fa wàcc yëpp ay saar yi dañoo tàng jër di wax ci mbirum alaaxira di wax ci mbirum bokkaale di wax ci mbirum mooy yàlla gi gaa yi nekkee woon foofu amma boo ñëwee Médine nga gis yàlla di wax ci ay julli koor azaka aj mag ak yeneen dund ni nga xam ne moom la doomu aadama yi di dund yooyu yëpp da ngay fekk mu wàcc ca medinatul munawwar ndax moo tax medine yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu yegsee rek li mu njëkk a def mooy jaamu yàlla yi nag nit ñi daal di commencé lépp loo xam ne mënuñu ko woon ca màkk ñu commencé di ko dund ndànk-ndànk ca medinatul munawwar alxuraan bi di wàcc ba yàlla subhanahu wa taala xëy na ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa radaytu lakum al islaama diinan kon incha allah doomu ndey mun nañu tënk fii bu fekkee am nay question incha allah ñu daal di koy eggali ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala dars bii di ñëw nag ñoo ngi jël congrès boobu nga xam ne nag organisé woon nañ ko ca daaru nadwa pour rey yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom yéeféer yi lu tax mooy wax naa leen sànq ne attentat waaw mooy musiba boo xam ne rek def nañ ko pour jéem a rey yonent bi alayhi salaatu wasalaam attentat ko daal di koy rey lu tax ndax xam nañ ne moom kese moo des Médine moom ak waa Makka moom ak Aboubacar ak Ali ñoom ñoo fa des léegi nag comme moom mooy kilifa gu mag nañu fexe ñu rey ko guddi ñu attentat ko biir këram ray ko su ko defee bu ñu xëyee ñu ne ñëpp a ko rey léegi dars bi di ñëw incha allah moom lañ fas yéene jël waxtaan ak mbokk yi naka la ñu tërale mbir mi aka naka la ci iblis teewee def ci ay pexeem pour yonent bi alayhi salaatu wasalaam du mucc ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu fekke ko ñoo ngi jéggalu ci guddee bi dañu xawoon tukki tey dañu xawoon dem benn dëkk bu tudd ngaay am sunu benn enseignante bu papam gaañu woon démb ci guddi ñu demoon fan ak tey jaale ji leen moo tax ñu xaw a guddee ñu ngi leen di jéggalu asalaamualeykum wa rahmatullah